asalaamaaleykum mbokki xarit yi ñuy seetaan ñu dalalaat leen ak jàmm ak salaam ci seen première émission culinaire bi ngeen xamante ni Beurre Sofia daf leen koy andil ci weeru koor bi yëpp fii ci télévision Futurs Médias nag lay amee Beurre Sofia margarine pasteurisé riche en goût sakan sell xam nga ni beurre Sofia kenn dootu ko présenté waaye beurre Sofia tey nag dafa dem nappi waaw dañu dem géej ñu fas yéene defar gratin de poisson donc pour ñu jàll ci recette bi lan ngeen di soxla seen kër di ngeen soxla lot yoo xamante ne dañ leen ko defal ay file dinañ fi soxla soble ak euh, laaj soxla kaani rosi coriandre ak oignon vert am naa fi tamit sauce béchamel boo xamante ni meew Sofia moo koy moo koy togg donc xam nga boo sos sauce béchamel ni fromage ni farin ni meew noix de muscade xorom ak poobar donc moom tamit dañ koy démarrer ndoo rek ak li nga xamante ni mooy sunu ay lot ñu jël lot bi def ko ay ay donc ñu dem ci gaz bi margarine pasteurisée bi nga xamante ni jéeg yëpp moom la ñu taamu donc njëkkee ko suñu casserole sànni ci tuuti huile d'olive donc si beneen pool bi tamit ñu def beurre sofia pour mën a réaliser li nga xamante ni mooy sauce béchamel bi nga jël li nga xamante ni mooy sa farine sànni ko ci daal di koy délayer ak sa meew sofia sàppali nag def sa xorom ak poobar yóbbu jën bi donc ci biir poêle bi soxlawul nag muy ñor xomb parce que am nañu effet gratin bi nga xamante ni deuxième cuisson bi ci poêle bi lay lay xewe bu ñaari côté yëpp dooree légume bi di soog a ñëw donc ñu teg nii suñu casserole daal di jege sil suñu farine def si ñaari kuddu yu mag ñu dem jël nag sunu meew Sofia booyal ko sunu bol meew Sofia riche en vitamine A et D meew yi nga xamante ne baax na ci màggaayu xale yi ndax li sunu yaram di soxla ci minéro yépp ak calcium moo ñu koy jox donc ñu yëngal daal di koy sotti directement ci li nga xamante ni mooy. farine bi ak beurre sofia bi ñu def yëngal automatiquement donc étape bi nga xamante ni jën bi benn côté bi ñor na te ci suuf ñi ngi gis ni mi ngi doore ñu daal di koy puus wis ci kaani bi ñëw ci laaj bi ak soble bi ñu def suñu xorom poobar ak noix de muscade ci sauce béchamel donc li nga xamante ne mooy sunu jën tam buñ ko fàtte sàppali xorom def ci tuuti jonge mu indi couleur bi daal ci sànni tuuti poobar ñëw ci herbe yi nga xam ne ñoom au dernier moment lañuy dugg en action def ci suñu sauce béchamel mën nañu fay léegi gaz bi donc mën nañu fay léegi gaz yëpp fromage bi genn bi def ko ci biir gruyère wala parmesan ngeen ci def ñaari cuisson la ni su ngeen gisee xam ne jën bi dese na ñor sotti ci yëpp jël nag li nga xamante ni mooy sauce béchamel bi def ko ci ba jën bi yëpp am terminé nag ak li nga xam ne mooy tuuti fromage ci kaw mais pas lu bëri daal di koy dugalaat nag dugal ko léegi ci fuur bi bàyyi ko fa 15 minutes ndax fi mu nekk nii nag moom léegi yëpp dikk na donc ñu teg nii am porte-pièce bi nga xam ne dressage bi day gën a rafet jël dog yi dogu poisson yi tamit teg ci kaw mooy quelques légumes teg ci côté bi li nga xamante ne mooy sunu coriandre bi ndax dem na ci sànq teg tuuti touche waa mi ngoog nag gratin de poisson yi pare na dañ koy yóbbu nag ba Genève yekkal ko Manel Fall surtout jéeri joor ndee ndeela boobu nga xam ni buur la ci yaay buur la ci baay donc di leen souhaiter une bonne dégustation cette fois Beurre Sofia di dellu di leen jaajëfal ndax taamu bi ngeen ko taamu Beurre Sofia dina dellu si waat suba incha allah ak Alphie pour beneen set